kon ñu ngi fii tey kër sëñ euh, Cheikh sëñ Mouhamadou Bassirou Mbacke euh, ci sëñ Mountakha Mbacke xalifa général kullu ko mu yàgg fi loolu mi ngeen gis moom mooy association de la Mouridiyya mooy mboolem ñi nga xam si moo tey jii ñu booloo tey euh, créé ak benn lépp nag xam naa dañ ci fas yéene seen i objectif waaye yii la ji tey moo ñëwoon fii tey ziar sëñ Mouhamadou sëñ sëñ Mountakha Mbacke leeral ko liggéey bi xam naa kon mbooloo mi lépp loo xam si mooy bureau bi ñu fal ak ñi nga xam si suñu borom def na ñi ngi fi ak ñi fi nekkul daan fas yéene jox euh, jox kàddu gi sëñ Babacar moom mu digteel ñu ziar mooy euh, euh, mu tënk yoon a doon fee ci biir bi fee ci feete ci biir réew mi ak ci bitim réew kon ñu ngi jox kàddu gi li nga xam si moom la fas yéene leeral ci association des écrivains de la Mouridiyya bismillah waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ndax mbokk yi mbokk taalibe ñu ngi leen nuyu di sant yàlla bu baax a baax ci bi nga xam ne ñoo ñëwoon association bi de secret mouride de la de la Mouridiyya waaw muy jàngatu kutaabu Mouridiyya ñu ñëwoon ngir siyaare Cheikh Mamadou Mountakha yàlla dogal nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu siyaare ko siyaare bu yaatu wax ko li ñu yéene moom itam mu nangul ñu ko waaye wax ñu ne ànd da ci ànd naa ñun ci bi dañuy soññee sax Ah, ah, da ci soññ ko ah, kon nag loolu di lu rëy rëy rëy loo xam ne yaakaar naa ne kon danañ yokk ab soññ waa ci gëstu ci sëñ sëñ ak bindi ci sëriñ Touba ak gën a ànd seet nu ñuy gën a mën a euh, mën a yokke patrimoine mouride waaw waaw kon nag xam naa sama wax du ci bari ko moom nga xam si moom mooy président association des équipes de la mouride ah. sëñ Babacar génn ngeen léegi ci sëñ bi ah. te amal ziar Sarr yéen mboolem ñi nga xam si yéen bind ci yoonu murid mhm. ban mbégte ngeen am ak lan ngeen di dikkal li nga xam si ñoo leen toll waaw waaw xam nga ñun suñu xol dafa tooy ndax euh, jëm ji ñu dajal mhm. dëgg dëgg fi la ci jamono yuñ toll nii mhm. du ko yomb du koo xam ne tey boo ñëwee rek gis ko te du ci daraam waaye euh, liggéey bi di ko suñ borom teg ah di ko Cheikh Amadou Bamba Khadim la lu teg liggéey boobu moo diis waaye dañuy sant suñu borom ba nga xam ne ànd nañoo suñu président d'honneur a ah, fexe ba toog ak moom waxtaan ak moom xëy na waxtaan wi gàtt na waaye am na solo ndax ñun dañoo dañoo fabuwaat dañoo bëgg a fabuwaat liggéeyal sëñ Touba waaw ndax des na toujours ay ay ay angle yoo xam ne ah war nañ ko matal ci kattanu borom bi ci liggéeyal sëñ Touba bokk na ci di association bi maanaam téere yi nga xam ne dañ ko war a dajale ndax àdduna bi bind nañu téere yu bari ci sëñ bi mu ñu bind ko ci ci wala ñu bind ko ci yeneen version occidentale waaye téere yaa ngi fi association bi nag dañoo bëgg a góorgóorlu ba fu téere ne ñu xëcc ko indi ko fi waaye yemuñu foofu kat dañoo bëgg di di ñaax n'est-ce yi ñuy bind ci sëñ bi ndax gëm nañu ne te lenn newu fi sëñ Tuubaa rek a fi ne billaahi lazi Sénégal gii Afrique gi àdduna bi solution bi fenn la mooy Tuubaa du leneen kon nag loolu danañ war a gën a war a góorlu ah association bi day góorgóorlu ba euh, euh, euh, institution yi mu mel ne université bi ah mu mel ne mu mel ne Masalikul Jinaan ñu fexe ba bépp bu téere bu sëñ bind ak njabootam ñu bépp écrivain bu bind ci sëñ bi ak njabootam ñu indi lépp dajal ko indi ko ci kii yooyu loolu daal mooy suñu suñu mbébét incha allah rabbi yal nañ ci yàlla jàppale bu baax a baax waa di sant nag di sant ñi nga xam ne ñoo ko xalaat gannaaw jëmm ju tedd ji tey ah mooy suñu xalifa mooy suñu lépp moom la suñ borom suñ bi taftal ci ñun gannaaw sant ak gërëm ah bu bu ñuy ñeel jëm ci moom danañ sant it mii ah nga xam ne moom ak ndongo mbaay mbaay mii ak ah, astafurlah bamba mbaay mii ñoom ñoo taxawal projet bi taxawal ko ba mu taxaw ñoo ubbi ñun ñu yegsi ci yal na leen suñ borom fay yal na leen suñ ba jaay cheikhul xadim moustapha te a am waaw du na bu ñu am nag ay waxtaan yoo xam ne dañ ko gën di yaatal ah ndax fii dafa xat waaye incha allah rabbi waaw mu ngoog waaw jazakallah xeyran kon jërëjëf kon xam naa ni moom dafa baax rek waaye euh, bureau bi kon bureau bu njaatal la mu mel ni euh, sëñ Cheikh Mbacke mu sëñ Mountakha moom mooy moom mooy euh, moom mooy kii président d'honneur bi sëñ Babacar Xuma mii ñuy gis moom mooy président association des de la Mouridia waaye secrétaire général bi mu nekk sëñ Mortale Cissé moom nekk professeur sa université Anta Diop moom moo nekk ñun ñi nekk secrétaire général adjoint yi waaye vice président bi sëñ sëñ Alla Diang moo ñu gën koo xam ci INACOI muy jàmbaar di bindkat ci yoonu murit sëñ Mamadou Lo nekk trésorier trésorier daal suñ kër seen moom moo xam si moom mooy nekk trésorier trésorier adjoint au waaye sëñ Ndongo Dimbe moom mi nga xam si euh, kenn dootu ko euh, euh, présente ci yoonu murit mu bind ay téere yu bëree bëri moom moo jiite waaw kay di nekk éditeur nekk président des associations Euh, de des écrivains de Louga bokk tamit ci ay ay ay mbooloo yu bëree bëri jëngu ci wàllu mbind mooy wax dëgg suñu borom def mu nekk président comité scientifique euh, économique et financière waaye tamit sëñ Moustapha Dieng nga xam ne journaliste de Sud FM moom moo nekk chargé de la communication sëñ Moustapha Diop moom moo nekk euh, chargé du conflit social mooy su ma juumul yaakaar naa ni bureau bi yëpp jot nañ ko taaxal sëñ Ahmadou Bamba Sène mii di bindkat moom di jàngalekat moom moo nekk commission organisation ak sëñ Moutada Kébé mi ngi fi yenn écrivain yoo xam suñu borom def sëñ Cheikh Mbacké ñooñu ñëpp ñu ngi fii ak sëñ Baali waaye ñu ngi sant bu baax mbooleem ñi nga xam si ñu ngi doon topp di wax ni waa diaspora bi bàyyiwu leen benn yoon xel ñoom it wax dëgg yàlla ñu ngi doon ànd ñun liggéey bi sëñ bi sant na ñëpp ñaanal na ñëpp waaye di sant ni mbooleem ñi nga xam si suñu borom daa def ñu bind ay thèse ñu soutenir ko ñooñu ñëpp ci ci ci association bi lañ bokk professeur Mohamed Gallaye Ndiaye ak waa Tavernier ak waa français ñëpp ñu ngi si jot na fee jàll képp ku fi indi woon sa téere jox nañ ko sëñ bi sëñ bi ñaanal na ñëpp lépp mu teg ci euh, kilifteefu sëñ Mamadou sëñ Cheikh mu sëñ Mountakha waa ko sëñ Babacar Xuma ak mbooleem mbokk taalibe yëpp kon xam